صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر daayira muqaddimatul xidma section Louga yor wàllum kaaraange ak sellte ci jumaay Touba ak li ko wër dalal nañu ay kilifa yu jóge ci Touba Mbàkke ngir fàttali taalibe yi digle ak tere yi ñu war a sàlloo diirub gi wax na leen sànq ji dañ tere maanaam nga jaar la fa jur nag wala giléem wala lu mel nga yar jaar la fa dañ koy tere sareet yi te dañ leen tere ñu jaar ci tali bi wër jumaa ji maanaam oto yi fii day foos dañ leen di tere ñu jaar ci tali jege jumaa ji ak njaay mu mën a doon dañ koy tere gaare sa oto ji tamit ñu wax ne nii lañ ko bëggee buntu soow bi féete ak jannatu fa la soxna yi jaar yéeg ci escalier bi jàdd ci càmmoñ génn wàcc ci barabu suñ fàllu góor yi jaaree ñoom it ndeyjoor bi dugg ci biir jumaa ji jàdd seen càmmoñ dugg ci ki waaye ñoom soxna yi ak góor yàlla yi duñ fekkante ci barab bi wax wax nañ ko sànq di sinap musique wala nga def ci xeet ay tëgg wala yu ni mel loolu dafa dañ koy tere youtubeur yi ak ñi war a filmé ci biir jumaa ji li ñu war a def itam mooy da nga ñëw jubal ci bureau muxadamatul xitma ñu jox la ab këyit la waxtu wi jël li ngay jël boo ñu vérifier li nga jël waaye na nga ñew yeglu sapeur pompier ak police té won ci jataay bi ñoom it wax nañu seeni matuwaay daayira muqaddimatul xidma lataa mu yëkkati jataay bi nak denk kaddu yi mboolem kuy chauffeur ci jamonoy nawet lañ nek heure sa daamar yeesalaat ko waaye tamit ñu daw ndànk xamné magal gi nga daw ndànk so gëmentoo nga dalu le daayira xidmatul qadim section Louga qui a en charge la sécurité et la restauration à la grande mosquée de Touba et ses alentours a été l'hôte d'autorité dépêché de la ville sainte pour rappeler les recommandations et interdictions prescrites aux pèlerins à l'occasion du grand magal L'interdiction est faite de mener des vaches, des chameaux et autres animaux aux alentours de la mosquée. Il en est de même des charrettes et des camions de vidance des fosses sceptiques Les activités commerciales, le stationnement de véhicules et l'embarcation des voyageurs sont prohibés. Les entrées et sorties devront se dérouler comme suit à la grande mosquée de Touba. C'est par le portail ouest que passent les femmes qui prennent les escaliers, tournant à gauche et accédant au mausolée du Saint-Homme. Elles pourront ensuite sortir, descendre et trouver le mausolée de Serigne Falumba Les hommes, quant à eux, passent par la droite. Qu'en est-il des youtubeurs et autres personnes désirant filmer C'est au bureau de Moukadimatul qu'il faut se rendre pour obtenir une autorisation précisant l'heure début et la fin des prises de vue ayant pris part à la rencontre sapeurs-pompiers et policiers ont décliné les mesures qu'ils comptent prendre à l'occasion du Magal le daïre d'adresser ses recommandations aux routiers avant de lever la séance et surtout les doucement tout en veillant à dormir quand il le faut صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر